dellu wax waxati siñ mbaw mi ci koñ bi jaaxal na ma day raasaato day raasaato yi siñ mbaw dikkati na day raasaato yi di raasaato siñ mbaw a ngi baayam maam góor moog baayam day raasaato day raasaato waaw waaw sëñ day raasaato yi bi ci kër gi jaamoon ah, xam nga tax yàlla boole laaj naa ko maanaam ñun dañoo bokk jëmukaay tubaarkàlla <laughs> da nga di doomu raam may <laughs> nit ku kii. ñun moom ñoo bokk jëmukaay de. mos kàllaf nag booy wax ah, booy wax ah. <laughs> li ma la ah, xam naa ko ab kàccoor nga ma waaw. maaroom bu génn kër. coow la ne fa cobbay. wax naa la da takk wuute. déedéet ala ngay dee. man responsable laa ci quartier bi. waaw su ma déggee ay ngal-ngal ay coow. waaw damaa war ne teg. lu dëgg la bu dee xeex la ma dem arté. loolu dëgg la bu dee xuloo la ma ma mhm. naka laa jël sama nopp bii. Hmm. dégg nga. Hmm. ko ci fenêtre bi. cëm ndekete ñaari kàccoor a ca biir. nga ma waaw wow. ay xale eh, xale bu góor ak bu jigéen ña ngay xuloo nag nga mu naan ko gëj naa laa dégg ak malay woo jotuma la nangam nangam ah ay kasaw kasaw fan di joxante numéro ba daal. Ah? naka la jëri numéro ba ca kaw <laughs> numéro daal mel ni daal. Ah? ngelaw da ko wëlbati ko nag mu ne dagaj sama alisa bi tarkal la. maa de wuy ma ah lépp looy waxoon rek. jëfee nga ko maa ngi ci. léegi nag yow ne damay daal ci seen kaw waaye nag Ndiaye. xam nga luy problème bi. waaw maanaam am naa numéro bi. waaye xale yi ngir mag wax ñoom du yomb de. Ah, toppal fële. nan laay def ba woo toppal fële laa loolu du dara. ah. yaa ngi numéro bi. waaye maa ngi numéro bi ma ne kar muy la alu. ah nga ne ko man la suñ ba. wax nga dëgg de. léegi waaye yow mbe eh, daa am nooy defante ak ñoom. wax nga dëgg yow wuy ma. waaw koy Mbeng. Ah. yow euh, Ndiaye tundoo di laa jógee woon dégg xam naa li ngay dox daam jaw laa doon seet. dox jaw men waaw daam jaw laa seeti ji ah, waaw dox nga kóllëre waaye gis nga daam jaw. waaw xaw ma contact xaw ma communautaire xaw ma importe xaw ma nanati waaye dafa corona de. kan daam jaw daa corona dafa corona moom. yow daam jaw corona eh, nga. Mbaw. waaw yéen lay waxal. garam place bii mu fekk ngeen toog xool ko baax. ay xale yu ndaw ñoo fa war a toog ngeen di leen ko tere. ay mag yi jëm yow nag. waaw la ngay tere maam Gune da nga koy tëj ci biir kër ga. Ah. yow mii yaa ci nekk. maa ci ne. Mbaw yaa ak Njaay ci caaxaan dong ngeen di dox. jërëjëf jë waaw yow Mbeng ma laaj la yow yow Mbengue yow Mbengue yow lan la yow lan la lan la. ci lan ci li ngeen def sama diggante yow lan la. ci li ngeen def. ah ba leen seen caaxaan yi ngeen nekk mbaw may ma may ma ay muskaalaf dëgg ngeen. jëlal jaay jëlal lépp da nga ñuy déglu jëlal lépp da nga ñuy déglu du ma lay dégloo. yow loo fi dégg lu jar sëñ mbaaw sëñ jaay yow loo dégg yow. waaye ma ne la ma leen fekkoon ngeen den waxtaan di ngeen koo dagg. yow dëgg yow da nga ñoo jaral dagg dara yow. da nga ñoo jaral dagg dara yow du ngeen ko dagg. ah yow yow daam jaw dafa kore naa ak kuré naaw nga ne nga dañ ko dagg fi mu toll nii moo fi gën a wuy ma gis nga ni moo fi gën a dëgër moo fi gën a dëgër bopp dana jéem a seeti daam jaw di jéem a gëstu ndax li may wax dëgg la waaye dana leer boo seeti boo seeti jee daam jaw waaye ma ne la quarante waaye ma ne cabit lu leer la la dong ne xam nga ne xam ngeen toog xam nga ne tegu leen ko fenn déedéet man gisoo sama kol gisoo sama kol man foo ma fekk damay damay damay damay kii masque nii def yow kon gisa da nga ak daam jaw jox naa ko loxo mu jox ma loxo. waaw loolu yaa waay la ah, noonu la demee de moom. yow nuyu nga ma yow. waaw ma ne eh nuyuwuma la. noonu la demee de nuyuwuma. daam jaw de daa kore naa ma jaaxal dong ngeen di dox. waaw dafa mën a moytu kore naa la mën a moytu kore naa tega ci yoon ko gën a wër. ah, ah baax na jërëjëf lii ngeen nekk moo yées kore naa. waaw waaw léegi yow jërëjëf yow jërëjëf jërëjëf fu nekk nga fekk ñu fa lëjël ñu bay bëgg a dégg sa xiina waa nel mu demal demal mbeng mbeng doxal doxal. walaay Mbow Mbow Mbow yaa di ungu yow waaye dara sa loxo nga naan ma lan. waaye xam nga itam <laughs> yow kore naawul waaye yow ah mooy yow Ngouti laa doon wëndeel <laughs> dama ko wëndeel ba mu xëy ma ñuus ko ci miir bi nan dem. <laughs> tarkal moom ma yam moo maam góor moo bàyyi ma yam. booy man dégg WhatsApp bi lan ci WhatsApp bi booy man temps yi dama dama lire ay message xool ci face bay bëgg a dee tool la mu jaari sax booy yaa ngi koy yaa ngi koy sifir bu baax waaw waaw waaw waaw naa oh, koy sifir ah waaw du xam nga ne mu mujj léegi ndekete jaaru sax fu mu nekkoon moom moo fa bàyyi boppam de ak li ñu ko wër yëpp ah, ah waaye booy tamit ma gën a xam ama gën a xam booy fii doy na waar mais yow temps yi temps yi ci loo nekk yow yow WhatsApp bi nga dëkk rek daal nii am connexion ñàkk connexion wuti connexion ñëw dugal toog di xàll voilà wow foofu la mais booy booy booy booy xool xool lee kii ma lay wat di sa casque yi wax ak man yow doo ko jël yow mii la nga jël ko yow xam nga da nga xam nga lool ah voilà léegi. kaay ma xamal benn affaire nga saam yi nii saar ñu xaw ñëw luur nii sa sa saar bi rek la ñu ma xamal la ko léegi xamal lu ma wax jëlal booy bi wuy ma bul discuter jëlal booy bi. jëlal booy bi jëlal ma puus tuuti ndax corona bi. ça va. la ilaha illallah ça va bien. la ilaha <laughs> illallah wuyu bi am na. xaaral. wuy sama lay. dama laa nopp. wuy yaay booy. dama laa nopp ngay waxee nii yëpp. yéen a ko ñàkk xam sa bopp nga. yow gis nga ma man ni ma toll kaw ba suuf. sa yére bi di ma xeeñ saxaar yow xanaa doon doon togg. waa góor waa laa ilaaha illallah ay man jommi man mbow. ah. yow jomma fii dara. kon kii mënut a wax. eh demal ne de yow yow yow yow yow taxaw yow ku toll nii macha allah ah. Eh, léegi léegi kaay kaay kaay kaay yow mën na koo dem taxaweel nii dem. ay lay kon mu yomb di yow wuy ma xoola waaw waaw jërëjëf. jërëjëf bi wax. waaw waaw waaw jërëjëf naa ko léegi neel mot. wan ma sa waay waay. yow man nam naa la. déglu ma waaw waaw waaw dama fi waay. booy demal bëgguma bëgguma am ak yow demal demal demal demal ah. bul xool booy wuu bul xool demal. yaa xam jërëjëf demal. duul. duul jërëjëf. jërëjëf merci merci booy jërëjëf léegi nag yow taxawal mënagoo dem yow dinaa wax ak yow. la toppee dafa sori yow maa ngi la toppee ginnaaw bax daal. di yangari yangari di yangari ba ca bopp koñ bee ma ni fa yóbbu am jot nga yaakaar ni nit a taxaw ak yow man man la man deke bu ma yëgoon ñëw bu yàgg. pourtant la de. kan lee lii. Ah, hmm, moo lii nga xam ne ma nga xam ne mel ni oto bu oto bu xëy fajar kii noyé. kana xam man ñoom laay wër. waaw wuy ma xale ndaw yi laay wër. léegi ñu dëgër ñi. jërëjëf waaw kay. léegi daa am nu ma bëggoon waxtaan ak yow ndax ba ma la dalay topp dafa yàgg macha allah yow doo ñamu xale. yaa may dégg ñamu mag nga ñëwal ñu am lante man ak yow nga ma koy rokkos ma la koy rokkos. yow paa bu dee bii. dee. suqiku bi jaaw kaw ba suuf. <laughs> loolu nga foog. man sa bijaaw bi damay um. Ichema. yow. Eh, man ñu dëgër ci laa bëgg. dinaa la ñam ba nga yëg ne ñam. mos ma am numéro bi. ma mos la ñu mosante yow. jëlal numéro waaw kay. gaawal da am am lu fit. yow billaay boo mose na nga xam ne man paa bu wow. yow may paa may paa bu ne këj. waaw baax na. jëm laa ko ay li ma nar ak yow su ma ko defee nga xam. yow de bu la téye ba bàyyi xam nga yow gone yi ngay joobe yow. am gone yi ngay joobe fii yow. ah mooy sa numéro ah billaay boo ma ñamee. waaw boo ma ñamee doxal. garaawul doxal laa sa numéro doxal tarkal la cëm <laughs> ay waay déggal gannaaw nga déggal gannaaw nga ma nga daan jëndal jar na ko jëndal jar na ko ah bien moom indi ci këram xolal danaan xale yi na ñëpp dugg ci biir kër gi tëj xale yi tëj biir tëj bëttu kër gi tëj xolal te ñeeg yeeg saal yi te ñeeg yeeg saal yi waaye soxna jaara wuyowul turam maam góor mooy doom du góor xolal moo baay beeyam moom maam góor moo baayam lu mu def mu def ko moo siñ mbaw